ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2020 fajaani bima bihi fajaana baaqi mumitun walbaqaau jaana fajaani bima bihi fajaana باق مميت والبقاء جانا fajaani bi ma bi lu motut 24 heures dox suñ diggante ak berde yi nga xam ne kuréel gii di Mouwahiboul Akyas yi danañ koy togg at mu jot di ko yóbbu ci tooli Xelkom yi fajaani bi ma bi fajaanak baaqim mumitun wal baqaau jaana qawliya qawlun yuxjilul marjaana والدر والياقوت والسجاناك للواحد القهار من لي بانا كوني لأحمني بما استبانا الحمد لله الذي أعطانا العلم والعمل والأوتانا لو شكور وكفى الشيطان كفاية الباقين معتانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قلقا ورا مولانا مع الفرا والذهذ الفتانا وذكره الحكيم قد آتانا ñu nekk ci waañ wi mu mel ni ren jii am na ak yokkute bu baax a baax قبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لو خطابي ورمشانا وزان لي عند العدا ما شانا lakka wajhuna ihsan ñu ngi ci wàccaay war a dem xel koom suba insha allah bu soobee Sëriñ Tuubaa mu mel ni tey ñu ngi ci euh, wàccaay pour togg yi yàlla na tooma nag at mu ne ma koy euh, man la ñuy teg liggéey bi sama loxo ren nag dafa yokk trop a fa kàlla ndax daaw ñu ngi taal juróom-ñett fukki mbana tey ñu taal juróom-ñeent fukki mbana ren war ko yóbbu xel koom juróom-ñeent fukki mbana nag ay firgé firgé yu bari comme bokkuñu togg yi ay fase fase la Euh, am na juróom-ñetti mbaran yoo xam si petit pois la am juróom-ñetti mbaran yoo xam si macaron la am juróom-ñetti mbaran yoo xam si tufe la am fukki mbaran ak juróom yoo xam si dañ koy def mbaxal euh, amaan yoo xam ne dañ koy def ceebu yàpp jaxasaan ak sëb defaat yeneen juróomi cin yoo xam si dañ koy def insha allah ceebu keccax pour bokk tali bi euh, tey nag ren nag ak yokkate dafa am ndax daaw ñi nga reen juróom-ñett nag ren ñoom fukki nag ak ñaar kon fa tabaarakaala loolu yokkate ndax dafa daa wax ne insha allah toggaleen ma yàpp ceeb loolu moo tey ñu ne ca programme bi nag bokk yëpp génn na muy ñi mu àndal liggéey bi ñi mu bokk yi nga xam at mu ne ñoom ñoom ñoo koy ànd di ko liggéey di ko saytu ren nag ñëpp ñu na yokkoon na daaw waaye ren te toirakaal dafa gën a yokkuwaat ndax nii mu doxee ren nga xam ci ren fekk na avant ñu jul timis jekk nañ pour mën a taal mbane war ci jub ci liggéey Serigne Touba bi ndax bëgg nañ 10 heures mu jotee incha allah ñu départ wuti xel kom it ko dongay yi ak gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum 2020 di bi nga xam ne ci a yóbbu xéewal yii ca xelkoom yow cam si fàttalil ki la def ni nga mel gorel ko yow cam si fàttalil ki la def ni nga mel gorel ko mooma woon ba ngay tane kii rek te yoru sa mbir jugal ko yow bi ngay ganete mënuloo moo la xëy muccal wér dundal la di la yiir tey nga ràññ nag war nga xam fi say xiwli jaar nit ka yàlla wax ah, sëriñ saali way ki yor sunu njëriñ ah sëriñ saali way ki yor sunu njëriñ ah sëriñ saali way ki yor sunu njëriñ laayi sang bay ki yor sunu njëriñ nit la lay nduróol te bëgg rek man ti leen jariñ nit la yàlla fal na gënale ko Abdallah Jalaay way jiitu na fi jëmam Adama ngi feeñ ci jëm ki tax ñu sàkk nit nekk na lu jiitu ba ñi sàkk Adama Sëriñ Bamba moo di yeneen leer ka genn la saali woo waral ku ma ñëw liggéeyam nga yor soobu leen lu way bi ñu xëyee laata fukki waxtu du jot fekk na xéewal yépp noppi sëriñ Saliou Mbacke mu alxaaji Baara Mbacke Falilou mi nga xam ne moo jiite kuréel gi ànd ak Moustapha Mbacke Lo waaye it soxna maam Faati Sidi ànd ak El Hadj bu Bambey ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañuy ñu seqal liggéey bi ñu jël xéewal yi def ko ci oto yi def nag ab convoi bu mag fas yéene wutali xel koom ngir berneel mbokki taalibe yi nga xam ne dem nañ wuy ji wooteeb sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou jëm ci toole xel koom yi muy am mbàcc waaye ak gér yi sawaay bu ëllëgee doo fa jaaxle waay man li may xalaat mu di ma neex bis danoo ne woon bañ bu metti lool mu tuf leer ya dal ma benn jotee ba tegal ay simili yu néew ci lañ agsi Xelkom convoi bi mi ngi njëkkee ci dal bi nga xam ne kii di Serigne Saliou Ndiaye moom moo ko jiitee ñu wàcc fa lenn ci xéewal yi yëkkati fa ay kàddu santante sant Seex Saaliw moom mi tax tey nu am xéewal am xéewaloo gaay nan la sant Seex Saaliwoo moom mi tax tey nu am xéewaloo mooy doonay Seexuna Alxaadimoo googi jaay kokki jaay jéewaloo masta mooy liili yoon waw xadim masta tooñ masta juum fa walo mooy xiyaasun lana qutbuna mooy mbegum gaayi nan jebbulo sant nan sëñ bu mel ni nga mel yombuloo sant nan sant bu mel ni nga mel yombuloo waa tey xaay tey bég nañoo nguur gi it fal leen semmaloo wan mi diine rek moo ko ñor jéngulo noppi geek maanu geek sammu noppi gi teewula yewulo tami yaak jàngaleek yel ci diine yaa dey gaayilan ya ajjuma bis bu màgg ba gannaaw fajar sang ba julli ba doo weddu suba na makk jublu penku ba boobee la bu yàlla yebal malaaka ya ma ne mu jël gu sell gam xamul gu ni moom ca dend ba malaaka maa ngay di wey waa asamaan ya naa ko cey leer gi nga àndal moo koy xanaa imaam bu màgg ba guddi ga la soo siiw guddi ga nag la doosiw xibaar ba tas ci mépp réew ma mel ni doguma ta yeew maag bépp donga bum fi ba ñun ñépp mujj mel ni liir boo xam ni ak dundam ci weer la tollu ndey jaxay ko mu yuuxu ek ta tawa Señor lo sëñoor loo mi nga xam ni nee jawrin la ci liggéey bi nee te ànd koog mbooloo mi nee na ak soxna Faati Mbakke moom sëñ Siidi moom Cheikh Abdou Lahad nee na ak mboolem ñi ñu àndal yëpp di siyaar mbooloo mi sëñ Asan ne ñoo ngi siyaare mbooloo mi yëpp sant itam mbooloo mi nga xam ne nee di sant mbooloo mi nga xam ni ñoo jël seen ñaq ñoo jël seen ñaq jël seen doole ne def ko ci liggéey bi. mbir mi daal nee ngir bañ a guddal sant nañ sant nañ ñëpp ñoo ngi sant Serigne Saliou di sant mboolem mi àndal di sant Seigneur Lo ak ñi mu àndal ñëpp ak soxna Fatim Serigne Sidi nee na ak ñi mu àndal ñëpp nee di xam ne barab bii nag lu ko waay def nag lu ci waay defit lu ci waay defit Serigne bi nga ko defal kenn mënu fee fay kenn mënu fee fay Serigne Saliou rek kay fay ñoo ngi ñaan nag liggéey bii ngeen di liggéey. yàlla na ko barkeel yàlla na ko barkeel. barkeel Seexul Xadim. ci barke Seexul Xadim. mbooleem ko sëriñ bi def Seexul tapp nga sangub xawsu ya ndamul ci mbooleem pàkk ya leeral te yaatal xutbu ba tapp nga koog liggéey na lool bu ëllëgee bañ di ko jal ñëpp a jaxaj ba ñu dul ña boom bu tedd ba ku dee ti sàkku sarax ngir xam bu wér ni mbir mu nax day bëgg a xew te du nu nax ci yàlla buur bu màgg ba ku deet ci gaayu baax ya fi newoon daa dajaloo ci yow sëriñ Saliou bi ñu jugee ci dalub sëriñ Saliou Ndiaye mbooloo mi it àndaan nan defaat convoi dem ci dal bi nga xam ne foofu la kuréelug saalixaat yi nekkee foofu it ñu jagleel leen ay bernde yu am solo mbaa ci sëriñ bu mag ba woon yow seenatul sa ba téere borom bi jooy na la téere borom bi jooy na la ngir xam ni kenn duutu la mukk ci moom seedel na la ni nga jël nga raaya ba sunnas yonen bi moom itam jooy na la ngir xam ni du am ku ni yow ci kanamam ci yee ak saytu ba xasida yaa ngi jooya ñoom xasida yaa ngi jooya ñoom ku leen di fonkatee kayem di jox ñu koy joo kayim lu xel dajul ngoon ak suba tarbiya jooy na neena wooy tarbiya jooy na neena wooy fu may jëleeti sang buy defaru nit bañ leen di woy ci jaamu ak ci jàngu ba xel kooma tuuba njàppu ndal ndookaala gan ak njibigel ngéejaan gota xabaan jul ak nga bu jooy nañ sang ba say jikko moo de alxuraan say jikko moo de alxuraan kuy jéem a xuus géeñ bambulaan yendu di dem ak di fanaan du tax mu jot asaka ba adduna ji fi maas ñii di mooy sëñ Saliou Mbacke mii sëñ Saliou bi mu ñu ko tuddee tudd si ñoor moom Alaaji Moustapha Cissé Lo tudd nañu ñëpp ndawi Touba yëpp at mu jot ñu def nii ren nag ñu ni dañuy ñëw seddal bii ànd ak yow liggéey sëñ Touba bi mu ñëw nag soxna Faati Sidi mi at mu jot moom itam jëwri nañ ci liggéey bi day ñëw soxna Faati moom sëñ Sidi mu Cheikh Abdoulaye liggéeyal maamam rek ko yitteel ànd ak ñoom yi baax yi ñëw ci liggéey bi ànd ak ay soppeem ak ay taalibeem ñoom ñëpp ñu ànd ñëw sëñ Tuubaa moo ni woon sëñ Saaliw sëñ Saaliw mooy mottali sama liggéey mooy mottali sama liggéey ne waxuma sax ni waxuma sax ku ñëw ku ñëw ku ñëw liggéey ku ñëw liggéey wala ñoom ñii di togg di indi wala ñoom ñii di togg di indi waaye pus poussière Xelcom rek poussière Xelcom rek képp képp ku ko noyyi képp ku ko noyyi la neexee bu la naqaree bu la neexee bu la naqaree sa aajo fajuna àdduna sa aajo fajuna àdduna ak àllaaxira loolu moo tax njaboot sëñ Tuubaa njaboot sëñ Tuubaa gi ak ñoom siñoor ñi ak ñoom siñoor ñi lu ñu mën ak lu ñu mënul ñu mën ak xel koom ñu koy indi xel koom sëriñ Saliou nee sëñ bi waxoon na ni na ni kenn képp ko jaaxal ëllëg kenn képp ko jaaxal ni sa tànk ni sa ta tegu mës tegu suufu xel koom suufu xel koom kon ñi fi teew ñëpp kon ñi fi teew ñëpp nañu ni alamin alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou. signor mi ne signor Lo mi moom it moom it seen liggéey bii ne liggéey bii di mooy bu lakk yas mooy bu lakk yas ne mooy bu lakk yas du benn yoon ne du benn yoon du ñaari yoon du ñaari yoon bañ dalee dool xel ko ba léegi ne bañ dalee dool xel ko ba léegi mosuñoo toog mosuñoo toog te waruñu daara yëpp te waruñu daara yëpp waxuma daara xudóos gi rek waxuma daara xudóos daara xel koom yëpp ne daara xel koom yëpp mboolem mbooloo fu ne mboolem fu mbooloo ne te nekk ci liggéey bi fekk nañu fa fekk xéwal mooy ak yas xéwal mooy ak yas la fépp laa yóbbul loolu nag nee loolu nag du at mii du at mii kon ñi ñëw kon ñi ñëw na xam ni nañu xam ne maa ngi sakku maa ngi sakku ñu ñaanal leen ñu ñaanal leen ak ñi ñu ko daan àndal ak ñi ñu ko daan àndal minicar ñoom minicar ak ñi bokk ñi ñoom ñëpp ak ñi ñu àndal ñëpp ñaan nag maa ngi ñaan nag xam naa ni xam naa ni fu leer gi yonent bi àgg fu bi àgg mag gi àgg na fa sëñ Tuubaa bi àgg na fa yërmande sëñ Saliou àgg na fa sëñ Saliou àgg na fa yàlla na fa mooy àgg yàlla na yow sang bi bu yàlla yàlla nag ñu fayal suñ waaje fóot suñ wàggi xol yow mi nga xam ne yaa amal lépp lu am ci dend ba bu yàlla yow ñoo ngi lay dagaan xaboom ba moom nay walangaan leera ngërëm kulla samaan ci barke sur yonente ba njaboot gi góor ki jigéen yàlla na yàlla sàmmu leen def leen i mbar ci diine yeen yu kenn mënul ci saytu ba taawam ba seex ahmadu yàlla na yan bu diis ba mujju mel ni mbaxanaam ba mu matal mébéti baay bu tedd ba Cheikh Moustapha gaynde ga cam yal na ko yàlla may ndam yàggal ko bam def mébétam ci diine jeeg tariixa ba sëriñ Basiiru Mbàkke moom yàlla na dem bañ di ko yéem ci gudd fan ak may goom ci barke sun wasiila ba sëñ jiile Mbàkke yàlla na dem ba ñépp yéem ko ci mayam tem gudd fan te wér itam ci barke sun séddalay xéewal yi nag ñu ngi ko jeexalee ci daara yi daaru salaam ci dalub donga tarbiya yi foofu it ñañu fa fekk ànd ak mbégte waaye it sant kuréel gi bu baax a baax bu yàlla ñun dongaam itam yàlla nag ñu may ay ndami ndam ci sëñ bu mag bi waajuram ëllëg ca bis bu mujj ba ku ne ci ñoom na ami koom yu yaatelew te doon boroom ngërëm yàlla sun boom te yàgg lool ci dend ba innal muna sayxi fii kafay ki saabitatun lii tax baluñ soxla daw ñëw sëñ bi noo ngeeti képp ci ñun nanga faj aajoom ca faj ga ca war ba saa delloo seeni kër dootuñu tayeeti ku ñëw di sakku si xam-xam min wuloomi kumoo nga duy dabam ba mu fees ba dootu laaj seeti awale nga seex si yoon wu mag ba sëñ bi awoon képp ci ñoom dem na xel koom wuj fa astuuti bagaana ab patayon bu mus la génn këram sëñ Saam Mbàkke moom Alaaji Baal nee na ñii ñoo bokkoon daara moo tax mooy bu lakk yees léegi ñoo bokk daara ndawi dëkk bi ah, teraanga yi nga xam ne ñu ngi koy di ko andi xel koom dañu dañu ñëw fekk fi andi ko muy lu rafet bi ñow ñëw nag sëñ Saalim Mbàkke la ñu àndal Baara ànd nañoo ak señor Lo waaye ànd nañoo ak soxna Faati Mbàkke moom sëñ Sidi moom Cheikh Abdoulaat di jàmbaar liggéeyal maamam rek ñor ko ak ñu ñu àndal ñëpp sëñ Maamun Lo Gaydel mi ngi nii tey kon ñëpp ñëw nañu. ñu ngi leen nuyu baax Xaarim ne ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax. sunu nuyoo teg ko ci ni fab di fab di ko teg ci loxol sëñ Saliou Mbacke Alaaji Baara ñun doom nga tër bi yëpp ak soxna soxna ak soxna Fatim Mbacke moom soxna sëñ Sidi ne ak soxna moom sëñ Sidi moom day mel ne sunu xel dal na. ne sunu xel dal na. ay taalibe lañ. ay taalibe lañ. ñoom bu ñu toogoon fa toog. ñoom bu ñu toogoon fa ñu toog. te ñu ñaanal ñu. te ñu ñaanal ñu. lépp kon mu doy ñu sëkk. kon lépp dana doy sëkk. waaye li dal sunu xel. waaye li dal sunu xel. dañoo gunge dañoo gunge ñaanal ñu ñaanal ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ànd ak ñun ci liggéey bi ba tax na kon ñu ngi leen di ñaanal ba tax na ñoo ngi leen di ñaanal barkeb sëñ Touba barkeb sëñ Touba ci seen jëmm yi sar ci seen jëmm yi fañ bëgg àgg ci seen fañ bëgg àgg ci yéen yoonu maam bi ci barkeb sëñ Saliou yàlla nañ fa àgg ci barkeb sëñ Saliou tërbiye dal yàlla na leen barkeb tërbiye dal barke Seexul Xadim barke Seexul Xadim doo ngay tërbiye yëpp ñun doo ngay tërbiye yëpp sant nañ bu baax sant nañ bu baax sëñ Soy bu Ndoy mi nga xam sunu digg ak sëñ Soy bu Ndoy mi nga xam ne moo jiite dal bi dal bi kii bi Touba Daaru Salaam moo jiite Daaru salaam gépp muy sëñ di santaa yi ne di santaa it jàmbaari xel koom yi nga xamante ni jàmbaari ci ay soppe lañ la ci ëpp ñoo ñëw ñoo ñëw ànd ak sëñ Saliou Fall mi ànd ak liggéey bi toll nii di liggéey ci liggéey bu toll nii lépp ñooma ne li fi lekk ñoom ñëpp gàttandu leen baax ne sëñ bi gàttandu leen baax a baax leen sàkku ñaan ne sëñ bi ñoo ngi sàkku ñaan suñu borom guddal fan yi suñu borom yi wéeral suñu cër wéeral cër yi ndax lu dugg seen nopp ndax lu dugg seen nopp dana wuuteeg lu ci duggul ci yéen kon ñu ngi sàkku ci yéen seen darajay maam seen darajay maam ngeen ñaanal mbooloo mi ngeen ñaanal mbooloo mi ndax ñëpp seenu taalibe ndax ñëpp seenu taalibe bëgg nañ bëgg nañ euh, ñu raw mu raw ñu raw nee na ñu raw ba saytaanu du ci am wàll loolu rek la ñu sàkku sëñ xaadim jërëjëf señor sa taxawaay rafet na da ngay asgoor di nit ku baax moom jàmbaar jàmbaar la señor waa doo ngay tarbiye jërëjëf nee nañ jàmbaar nga sa taxawaay rafet na nee na gaasuwaal bii nga xam ne ñoo ngi koy kenn mënu ko ci ne kenn mënu ko ci ba démb ba démb it xéewal ne na fi ay xéewal tey jii mu yónneewaat tey jii mu andiwaat mu and mu ñëwal boppam andi ay xéewal ne sant ko bu baax bëgg àgg ca ndoom ak tànk yàlla fu mu bëgg àgg yàlla na fa àgg moom Seigneur gannaaw bu ñu séddalee xéewal yi ci mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne wuyu si woon nañ wooteb Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ci Xelkomi ren jii ci la nag mbooloo mi defaat convoi daal di wàññeeku ñibbi si Touba gannaaw bu ñu xéewloo nag ñu yëkkati fa ay kàddu soññee waaye it ay kàddu sant dégtal ko ñi nga xam ne ñépp jàppoon nañ ci liggéey bii. asalaamaaleykum bokk jullit yi bokk taalibe yi noo ngi fii ci kër Serigne Saliou Mbacké moom El Hadj moom Serigne Fallilou mbooloo mi nga xam ni ñooy mbooloo Mawahibou Akyas Mawahibou Akyas nag mooy ndaw yi dëkk bi seen yëngu yëpp liggéeyal Serigne Touba waaye bu ñu tuddee Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne mooy jawri ni liggéey bi lépp waaye ñu ànd ak. Sëñoor Lo moom Alaaji Moustapha Cissé Lo mu jiite lépp waaye ci taalibe ci bëgg sëriñ Touba ci yaatal ñoo fee goog soxna soxna Faati moom Serigne Sidi moom Cheikh Abdoulaat taxawaayam ci mbooloo mi ñëpp gis ko kon daanaka bu ñu tuddee Serigne Saliou tudd Sëñoor Lo jëwriñ liggéey bi tudd soxna Faati Sidi mi nga xam ne seni lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko mi ngi ci taxaw taxawaayu am solo luñ ciy def mooy ñëwal boppam ànd ak ñun liggéey bi at mu jot nii la koy defee di nuyu sëñ Mamoun ak ñu toog ñëpp lii mooy ndawi Touba yi nga xam ni lépp loo xam ne ñu ngi koy yëngu ci Serigne Touba def nañ seen loxo ngir liggéeyal Serigne Touba at mu jot ñu taxawal marché bu mag siyaare Seexul Xaddiim waajale ko bisam bi bu ñu demee ba tamxarit ñu jël suñu addiya dajale suñu mat matla suñu bool ak yi ñu am yëpp yot ko sëñ Cheikh Saliou mu yóbbu na ko ca donga ya waaye bu xel koom jaaga ñëwee ah ñu dajale nag suñuy xéwal suñu nag suñ ceeb yu sedd lépp ñu ni fu jëm xel koom rek yot ko ñooy liggéeyal sëriñ Saliou Mbacke at yëpp ñu ngi koy def ren ji nag ñu def lu am solo ndax ku yokkul wàññeeku waaye mboole mi daa gën a yokk ndax mbooloo mi sëñ tubaa rek leen yitteel ndax sëñ tubaa leen dig loo xam ni kenn amu ko kutu sëñ tubaa sëñ tubaa moo ne waqat yi awaa ijalla si na daamoo fii xidmati wa habla ummaaraamoo yàlla fajal aajo gaa ñi nga xam ne sax nañ ci ma liggéeyal nga faj seen aajo ñi nga xam ne àjjana lañ bëgg seen tubaa moo leen dig àjjana ci liggéeyal sëriñ tubaa inna la si na saaroo bi xidmatin sëñ tubaa nee na ñooyu am nañ ay kër ca digg kon liggéeyal sëñ tubaa rekk moo fi ne Touba nag ñëpp takku nekk benn bopp ànd ak sunu jëwri nii nu judd Sëriñ Saliou Mbacke ak Signor loo ak Soxna Faati ak ñu ñu àndal ñëpp at mu jot nii lañ koy defee keroog biñ tam xaatee ba suba sax bi ñu yóbboo sunu àddee sëñ Cheikh Saliou keroog moo doon wax maa jottali wax ja ñu ànd ak sëriñ Saliou dem keroog lam wax bi ma nee ko andi nañ ay mat laa dañ daa daa daa dakk wax ci ñu ni matelas yooyu daa fekk mu nekkoon ci sama xel kat ndax dama am dongo yu bees kon daje ngeen ceeg tawféexi maam borom Touba ñëpp di ko dégg noonu la ko waxee kon xol yëpp sedd na ren jii nag ñu waaje ko nii waajaay waajtaay wu am solo fi ñu war a dem ci xel koom fépp ñu dem fa dem nag ba ñëw a toog sant nag ñu ñu àndaloon ñëpp di leen soññ nag ci liggéey sëñ Touba bi mooy blocage moom lii rek la liggéey sëñ Touba kon nag xam naa damay jël kàddu gi jox sëñ Modou Mamoun Lo mu wax ci kàddug mbooloo mi wax ci kàddug Signor ndax xam ngeen ni Signor Lo jàmbaar la asgor la il faut ñu wax ko ko liggéeyal sëñ Tuubaa la tey yaatal na kon ñu jël kàddu gi jox sëñ Muudu Maamun Lo gaydel borom daam jàmbari sëriñ Tuubaa auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xabli safinatan bi kullil janna min daaratil minna ni yaasal minna ataaniyal markabu fii daari minnan inda tasin tadxulani daari minnan mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom julli ci sang yi sang yi Seydunaa Muhammad dellu sargal ki nga xam ni yaakaaru murit mën naa bàyyi ko fu ne waaye ci moom la yem ki wax ni wallaahu yansuru nii wal xalxu tatbaawu nii fil barri wal baxri zanafxin bi daa dararin seexu naa Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul ñoo ngi siyaare tey ñaanal Serigne tubaa Seex Muntaxa Basiir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ba naar yi mu naalal lislaam naalal ko Serigne Touba mu àggale kook sagoom mu dundaat téeméeri at yu tàmbali tey te nu ànd kook moom di jëfee ndigalam te bàyyi ay tereem di ko ñaanal sunu mboolem kilifa yi di ko ñaanal mbokki taalibe yi ak képp koo xam ne yaa ngi soosa daal dox te lislaam rekk tax ñoo ngi ñaanal bu baax jàmbaar jii nga xam ni tey moom leen xëyee muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér Serigne Cheikh Serigne Saliou yëngoom ak dalam yëpp. lislaam la yëngoom ak dalam yëpp liggéey sëñ tubaa la kenn gisu ko ci dara kenn dégg ko ci dara lu dul ileer bi foo ko sëriñ Saal yu bàyyi woon rek foofu la yë la ko yëkkati tàmbali aw sasam kon ñoo ngi koy ñaanam yàgg fi loolu te ànd ak wér ñoo ngi siyaare bu baax kilifa yi ci jotaay bi di ci jiital sëriñ Saaliwu Mbàkke moom Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbàkke moom Cheikh Mouhamad Faadal rakk ma ngi nii toog di sëriñ Alaaji Mbàkke yi moom Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbàkke moom sëriñ Fallu Serigne Saliou Mbacke mi ngi nii toog moom Serigne Bassirou moom moo Modou Habane moom moo Modou Numbe siyaare bu baax Serigne Abo Mbacke moom Serigne Amsatou moom Serigne Abdoul Ahad di siyaare yi mboolem njabootu sëñ Touba gu jigéen gi fi teew wax nañ ñu soxna baali mbakke mi ngi fi teew gis nañ fa sànket soxna Assou Mbacke mu Serigne Cheikh Mamadan ak soxna Ami Rakam siyaare it koo xam ni jëwriñ la ci liggéey bi moom sant yu mu sant. teewul da koo laxasaayu mhm. bokk ci biir kuréel gi bokk ci jëwriñ yi muy soxna maam Faati Mbàkke moom sëñ di moom si Abdou Lahat di koy siyaare bu baax mhm. te di ko sant di ko gërëm siyaare soxna Mati di ñu siyaare baax soxna Rama Dieng ak mboolem ñu ñu àndal ñëpp junior nag wax ni ñu jël ay kàddu yoo xam ni daa bàyyi ko ci moom jëm ci mbooloo mi junior nag waxal ko dina xaw a jafe ndax pas-pasam ak pas-yëf bi muy doxee ak li xolam loolu sunu làmmiñ lottu na ci waaye cant gi daal mi ngi ciy jiital Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ci ànd ak biir ndax kuréel gii di mu waaxe bul ikiyaas bi nga xamante ni sos nan ko liñ ci jublu rek mooy liggéeyal sëñ Touba boo boobee nag bu fekkente ni boobaak tey ñi ngi ci te lépp lu ñu nekk ñu ñu jiite ko ànd ceeg ñëpp kenn du des ginnaaw weeru safar bu teroo dox bu mag bi ngeen di dox ci Touba lépp lu nit jël jëme ko ci sëñ bi muy loo xam ne xëy na mi ngi ak suñu bëgg ci ma si Mawahibou Akyas dañuy réagir ci saa si ñu xam ne ñoom ñii ay soldaari sëñ Tuubaa lañ bu liggéey bi jotee it pënd beeg poussière bi kenn mënu leen ci lu ñu wartee sëñ tubaay yéen a nga ca buñ tamaxaratee ba ca ëllëg sa seen dara du ko fekkee kenn ku ne ci yéen ma ngay jaayante ñii danañ indi saabu ñii indi basan ñii indi xaalis matelas yi sax seex tudd na ko waaye joxe ngeen ba joxe ay mbasin desner léegi ay mbasin desner na ku ko jël jox ko dong yi jàng alxuraan kon yow xam nga ni kon yow la ngay def yàllaa tax ndax bu bu doon na njësta la ko rax da ngay xool ñi bëgg àdduna ak ñi bëgg tur nga dee leen ko jox waaye jasneer yoo xam leer na ne ña ngi ko jox boo leen ko joxee xel comme la ñuy ne ca poussière baak pënd ba fanaan ci matlaaya yow di jàng alxuraan di taal taalu jàng saxaar bi di ci dugg kon yow ña ngay wodd sëñ tubaa tax nga wodd leen te nag ku wodd nit ngir sëñ tubaa wodd nit ngir alxuraan yowmal xëyam moom bu la neexee bu la nakaree doo fa rable doo fa rafle dees na la wodd te da nga giseeg rasulaay da nga giseeg sëñ tubaa ndax nag sëriñ Cheikh Saliou mii ci ñi gën ci nit ñi la bokk ndax li tax mooy daara yii mu ne yor seen lekk ak seen naan di jàngal dongo yi alquran ba ñu mokkal waxuma ko de rasulillahi moo ne xayrukum man taxallama alquran wa allamahu kii gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale kon nag course bi ak njëkkante bi foofu la sëñ tubaa leen donga taxaw mu dem ci géej gi mooy alquran jëm kanam lii ne lislaam jëm kanam di koy soppiku lii donga doxoon sëñ tubaa ñëw jamono moo doxoon sëñ tubaa ñëw ci géej gi ndax dafa ni yàlla sama nee na ngeen ñëw ci man ndax man wiiruwaay laa te it làquwaay laa yàlla sama borom nee na njàngalem kese naa ko bàyyi te ñëw di ja ngeen ñëw di jàng ma di leen yeggale waale ca yàlla Cheikh Mbacke de wax léegi ni sëñ Touba nee na wax di hawa ijja lësiina daamoo fii xidmati wa waxab la fu maaraamu loolu nag am na sew-sew bu ci am ndax da ngay dégg ñu naan sëñ Tuubaa nee na yàlla fajal aajo ku may liggéeyal waaye daa am baat bu ndaw boo xam ne ñaari araf la te loolu moo mat a bàyyi xel daa moo fii xidmati mooy ku ci sax sax gi nag mooy nii ngeen def mooy bu ñu buñ nee ña ngay bàcc gerte gi ngeen togg yóbbu buñ nee sëñ bi soxla na ndànkam ngeen dajale yóbbu nanga war na am ci Tuubaa ngeen dajale yóbbu waa kuréel sàngam nee na nangam lu nuy liggéey Sëñ Tuubaa ngeen dajale yóbbu ndax si Abdou Lahad maam yi kii moo ne woon liggéey bi amul noppalu lu jeex rek ñu naal beneen li fekk ñuy dem ab murit moom ku ku la ku la ne wàccee naa la mbaa gërëm naa la demal croiser le bara kooku moo la lor ab murit xam nga kañ la war a wàcc buñ ko tegee ci jàkk ba ñëpp taxaw boobaa dana xam kam doon liggéey mooy kan te boobaa dana ko gërëm moo tax mu ne ni ku faatu yaa fay njëkk a teew buñ koy jullee nga di fa teew ñu rob nga ànd na ñoom di teew ñu dem nga des su tontu layam bakkan bu dee tàggoo di waaj saafara dañ ak i gàllaaj soppe bi yow rek lañ fa laaj yàlla sa barke maa la gëm waaye bu ruuti xar-xar li ba dal malaaka ak si di bégal sëñ Tuubaa rek la ñu àndal keroog bu nu dekkee ba xëy jëm béy ci ànd doo di wëy keroog a tax nga doy nu tey waaye bu ñaari malaaka yi ne jaleen di laaj Mbàkke nga ne lu ko waay sonnal dana la ko fay lu waay def ci moom mu fay la ko junior moom daa baax rek di gërëm waaye ñi ngay gërëm ñoom ñoo la war a gërëm liggéey suñ cuwaa moom koo ci woo moo la war gërëm moo la war a fay ndax lenn donga bu des nag muy liggéey suñ tubaa karaama yi nga xam ne moom la fi Rasulullaay bàyyi woon suñ tubaa liggéey na Rasulullaay lu mu yëkkat àndaar yëpp jox ko suñ tubaa naan lépp nga xam ne lépp lu waaye di sàkkutu yonent bi ci sëñ Tuubaa nga koy jaar moo tax mu ne moom sëriñ bi kaawteefu yonent la ku des te ab du yem dara du des lu doon karaama yi fi des yóbbaale na ko du yem sëriñ tubaa jël na karaama yëpp lu waay di sàkku na ko sàkku ci sëñ tubaa course bi mi ngi ci sëñ Tuubaa njëkkante bi mi ngi ci sëñ Tuubaa kon nanu gën a takku gën a doon benn dolli suñuy pas-pas dolli suñuy pastéef jóge nañ xel comme nii nag ñoom ña ngay bég ña nga sant waaye ñun nañ jàpp ni tàmbalee ñoom de bu ñu santee junni ñun buñ jàppee ne ñun ñoo ngi toll zéro bu soobee yàlla bu ñu xëyee suñu pas-pas day gën a yokk te danañ gën a mën a liggéeyal sëñ Tuubaa nee na ndax murit bi saa bu demee ba yëg ne mi dox booba la taxaw mbaa ngay xool nit ne diw mii kat dafa ñàkk pasiyeb yow jàpp nga ne am nga ko te jamono bi jàppee ne am nga ko boobu nga ko ñàkk moo tax mu ne na ngay daanoo ko jóg bul wax ne ku fiy daanu ko ndax ku yéegul ci kaw du daanu bay jóg di wutaat sëriñ Cheikh Saliou nag lum la bëgg-bëgg lu la sëñ Sidi Abdoulaye bëgg bëgg lu la sëñ Muntaxa bëgg bëgg bëgg lu la sëñ Abbas Mbàkke bëgg bëgg lu la xalifa Daaru Salaam bëgg lu la sëñ Moussa Massamba bëgg koo mën a jébblu lu mu la bëgg bëgg bëgg bëgg lu mu la mën a yéene ci tubaa Touba saa Saliou mii su ma ko bëggee bay jooy moom it mu bëgg ma bay jooy mënumaa am ci moom dara loo xam ne jóge na ci sëñ Touba te ñàkkalu ko moo tax mu ne soo te leen ni njariñ gisab Serigne jox koy njariñ Serigne koo ko jox njariñ mu di la jox ay njariñam ku yori yëfam nga yor sa yëf lank téye si yëf di ko laaj jëfam da ngaa dof waaye kon doo ko xalam nee na nag pay ci tamit nanu xam ni doonul doonul lu nuy fekk si danuy dox di dajeeg moom yow yow pay gi day dugg ci yow ay nit a xooy xool di ko gis ci yow te yow doo yëg ne yow pay gaa ngi ci yow yokkute gi yow doo ko yëg ñi nga dëkkal ñoo yëg ni diw mi yokku na di yëg ci yow changement di yëg ci yow ay leer ngay nelaw ba waxtu wala ne aajo boo am mu faju bari xaalis amul solo li am solo mooy aajo boo am mu faju te loolu mi ngi ci liggéey Sëñ Tuubaa moo tax mu ne bayal a bay te muñ a muñ ngir ñi ngay toggale añ baykat bu ñuy toggal añ na yittewoo rek mbayam kon nag nañu bay te muñ muñ te ne ci liggéey bi te dolli suñu pas-pas dolli suñu pasteef waa Mawaahibu Lakyaas daal nee nañ sant nañ ñëpp mbooleem koo xam ni jëf na ci ak noo ci mën a jëfee sant nañu la gërëm nañ la daf ma ne léegi nag ma santal bu baax soxna Fatou Sidi mënoon naa koo bañ a sant. Mm-hmm. ndax xam naa moom. pas-pas bi muy doxee. ak ni muy yëngoo. mooy moom sa diggante moom. war naa mën a tax loo nekk mu ànd caag yow rawatina Serigne Sidi Abdoulaye mii baayam day jëwriñu Serigne Saliou moom mii liggéeyukaayam koom la ko tuddee xelkom koom Sarr la mooy liggéeyukaayam kon moom bu demee xelkom wàcc na moom moo la war a sant moo la war a gërëm yow mi ko woo ci liggéey sëñ Touba Serigne Saliou Mbacké ñu ngi lay sant ñu lay gërëm ndax yow it mënoon ngaa toog di fii bu ñu toog añ yi ba noppi ni nga ñaan ñi dem ñëwaat fekkaat la fi ñu nga yeewinu daaw ci waxtu wii xel kom la nu taxaw def def euh, tàggatoo bii yaanu ñaanal kon ren bu ñu ko mënee defaatee fii ci sa kër dara warlu ko lu dul nag liggéey lu mu gën a dem kanam nga ciy gën a am euh, expérience ndax daaw faloon na ba tàkkusaan waaye ren laata tisbaar a jot liggéey bi mat na bis ban ko njëkkee def ñaar fukki mën la woon ak juróom kon liggéey bi yokku na ren def nañ 92 mana kon waa waaw 92 mana muy muy ati ati Serigne Saliou kon mboolem ku fi teew yàlla na sa borom may gudd fan ak wér dolli la 92 ans ci say at ci barkeb Serigne Saliou Mbacké di siyaare bu baax it te soxna Bousso juuf moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm alaaji ja at bu jot mu ànd kook ñun. Mhm. daaw ci waxtu wii. mi ngi mi ngi fi woon. waaye ren it mu ñëwaat àndaata ñu liggéey bi soxna Ami Galas Lo. waaw yow it ñu ngi lay sant. Eh, gërëm. bis bi saa bu jotee. Mhm. loo ne. da nga koy bàyyi ñëw ànd bi. ñi nga xam ni nag ñoo yoroon waañ wi ñu ngi sant di gërëm. junior moom wax na ni moom bu kenn sant nee na moom mooy sant yéen ñi nga xam ni yéen la bokk liggéey bi sëñ Moussa Sourang sëñ Mara. yéen ñu ko sékkal ñëpp nee moom moo leen sant leen gërëm ndax Cheikh Fall dafa ne yaara mbay mu a ko faal mu ne ko xam nga kan mooy jëwriñ mu ne ko déedéet mu ne ko ku ñuy njëkk ca waar di ko te mujj rek du ko ku ñuy njëkk ci waar di ko mujj du ko jëwriñ mooy njëkk ci waar te mooy mujj ci waar te nee yéen day yéen ko jiital muy jëwriñ waaye mel na ni yéen yéenee jëwriñ ndax liggéey bi moom ngeen def muy seen lépp mboolem ku ci jëf nag ak moo ci mën a jëfee sant nañ la gërëm nañ la ndax nag jëf ji ñoom biñ ko wootee woote wuñu ko mel ni kuy yalwaan ak di forcer nit ñi naan jox leen ñu ñu yóbbul Serigne Saliou ñoom danoo wax ni rek ñi ngi ci liggéey bi ñoo ngi dem xel kom ku leen ci fekk si la nga indi ñu defal la ko ci ku leen ci fekk si wutit nga dem jàppaluñ la dara ba noppi yéene nañ la ci yool wi teraanga ja nga am yàlla na yokk na ci barkeb sëñ Touba loolu daal moo doonoon kàddu yi lu ci manqué ñu xam ne ci ki koy wax la waaye fi mu bàyyi koo fu mat la soxna si nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ne ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonante bi ne di gërëm sunu ñaari waajur ne di ñaanal sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér ne sëriñ Cheikh Saliou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ne wax ji du mën a bari ndax dañoo jot ndigal ndax taalibe ndigal rek lay jëfe ne wax ji daal day gàtt nee ñoo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. nee ci ndigalul sëñ Saalihu Mbàkke mi toog. nee wax dëgg yàlla. nee siñoor loo ñun mënuñ koo fay. nee ndax liggéeyu seriñ Touba. da ngaa war di fay pour mën cee bokk. kon bu fekkee fayuñu du ci bokk. kon bu fekkee fayuñu ci bokk. kon dañoo war a sant yàlla. ndax lu waay am rek moom la. ndax moom la. lu waay mel moom la. kon nag lu waaye am ci àdduna da nga koy jël delloowaat ko Serigne Touba. moom lu ko waay jox. ku ko lebal ker mu fay la guddi. ku man mii di wax de. man mii di wax de. ba ma fiy ñëw daaw. ba ma fiy daaw. xam naa fi ma tolloon. xam naa fi ma tolloon. li ma mën ak li ma mën. barke Seexul Xadim. barke Seexul Xadim. ren jii bi ma fiy ñëw. ren jii bi ma xam naa fi ma yegg. xam naa fi ma yegg. nee du kenn ku dul Serigne Touba. la mu saf nag. nee la mu saf nag. ka ko màcc rek ka ko mën a xam. nee man mi fi ñëw daaw jaayante ci tool tool yi barke Cheikhul Khadim ne am lu ma fas ci tool yi barke Cheikhul Khadim bi may ñëwaat. ci tool yi bi may ñëwaat ci tool yi. la ma fasoon loola maa la ma fasoon loola lépp am naa ko. ne loolu sëñ Tuubaa rek ko am ne loolu ku la ko defal sa lépp dafa war a nekk sëñ Tuubaa ñun daal siñoor ñoo ngi sa ginnaaw muy guddi muy bëccëg foo ñu woo muy naaj wu tàng ñoo ngi sa ginnaaw ak lu mën a xew rek ñoo ngi sa ginnaaw ñi ngi sant jigéen ñëpp di leen gërëm ndax jigéen ñi ñoom démb nelawuñ ndax ay euh, 19h. ay 19h. ñu ngi ci ndugg mi di xollee ka defar. di xollee ay 2h du taal ku togg ay ñam fekk ñam yi pare. ku togg mu noppi. kon xam nga ni ñooñu kon nelawuñu. kon xam nga ni ñooñu nelawuñu. jàmbaar yi kon kon jàmbaar mooy ñi doon togg. ñu ngi leen di bàyyi ak Serigne bi. ñu ngi leen di bàyyi ak ku ci nekk yaa xam li nga fi indi. ku ci nekk yaa xam li nga fi indi. yàlla na la ko fajal. yàlla ci barke Cheikhul Khadim. ñu ngi jégalu ci kàddu yi. wax dëgg yàlla jërëjëf Mbàkke alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ne ñoo ngi sant Cheikhul Khadim bu baax ne te di ko gërëm tey toroxlu ci kanam saayu saa su nekk ne ci kanam sunu yaakaar tey ak ëllëg mu Cheikh Mouhamadul Muntaha di ko ñaanal yàlla sunu borom may ko fanu yonente yàlla nooxin wa ak mbooleem leeri seexul xaddim yëpp ak julit yëpp nee di siyaare sunu sëriñ sëriñ Seex Mbàkke moom sëriñ Saaliwu nee di ko ñaanal yàlla fan wu gudd lool ne an tamand ak nee maa ngi sant sama bokki bopp yi ne su ma tuddee nag señor loo mën naa ne tudd naa ñu mboolem dong yi ci liggéey bi. mën naa ne tudd naa mboolem dong yi ci liggéey bi yëpp. ndax waxtu yi moo moo matewut. ndax waxtu kenn ku nekk ñu jaar ci turam. kenn ku nekk ñu jaar ci turam. sëriñ Mamoun mu wax. ne sëñ Moudou Mamoun Lo wax. amuñ luñ ciy teg. ndax ci sëñ bi la tàmbalee. ndax ci sëñ bi la tàmbalee. ci la yemandeeku. ci sëriñ bi rek la yem. ndax nit ñi dañuy faral di wax naan. ndax nit ñi dañuy wax naan. tàmbalee tàmbule ci bi jeexale ci sëñ bi waaye sëñ bi du jeex ne ci la yemandeegun ne daanaka amul luñ ci war a teg ne liggéey bi nag buntu Serigne Touba yëpp wala buntu lislaam yëpp fu fi waaye mën a nekk di liggéey ngir jëmmi suñ boroom mën ngaa rafet njort waaye fii moom da ngay am njort. dafa am ku ma a ñëw sëñ Tuubaa ni ko. ni ko man dey damaa bëgg a dem aljana. mu ni ko waaw ci lan nga nekk. mu ni ko maa ngi jaamu yàlla sama kem kattan. maa ngi ja maa ngi jàng alxuraan la ma man maa ngi def lu baax ca la ma man moo tax ma bëgg ñu dem àjjana sëñ bi ni ko loolu ko ci sax mën ngaa yaakaar àjjana man ngaa yaakaar àjjana. waaye man de man na ma waat ne. waaye man na maa waat ni. sama xasida yi ku ci sax sama xasida yi ku ci sax. boo dee da nga dem àjjana. kon nag buntu bu waaye mën a liggéeyal ci Serigne Touba. da nga rafet njort lool sa bopp. waaye liggéey bii nga xam ne waaye liggéey bii nu jógee. nga xam ni. maanaam lépp luy njabootu Serigne Touba. lépp njabootu Serigne Touba rek. sa ñaq dem na ci. genn kër ci yoon amul genn kër goo xam ne ci yoon wi. mas naa wuute liggéeyub xel koom. ba mu tàmbalee 1991 ba léegi. loolu nag xel koom rek moo ko am. ak jumaay Touba. leneen lu mën a doon. am na ñu ca doon dara. am na ñu ca doonagul dara. ba mu des xel koom. ak jumaay Touba. dégg naa ci làmmiñu Serigne Salim. dégg naa ci làmmiñu Serigne Salim mu wax ni. Fadal moo sëñ maam Mooru Cheikh Modou Fadal moo ko wax. dañ faa jógee. dem di ko siyaare ji. dem di ko siyaare ji. sëñ maam Moor ne ko. sëñ maam Moor ni ko. ñu ngi lay ñaanal nga yàgg. ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér. sëñ Saliou ni ko sàllaaw foofu de. lu fa waay ñaan yàlla dana nangu. loolu nee na moo ko dégg ci làmmiñu sëriñ Saliou. kon nag nañu sant yàlla bu baax. ne sëñ Mamoune Lo leeral na ko léegi. bërëb bii ñu jóge daal. bërëb bi ñu jóge muy xel koom. waxoon naa daaw ne. waxoon naa daaw ne. nañu ñaan yàlla. nañu ñaan yàlla. ñu fekke waat déwén. loolu kenn wedditu ko. lii soxna Faati wax nag. lii soxna Faati sii di wax. kàddoom moo jóg rek. ne kàddoom moo jóg rek. waaye ku saw fan yokk. waaye ku saw fan yokk. alal waxe nopp. kon ku wàññi ko amu fi. ndax ñun ñëpp fekkewaat nañu. nee na yokk mënta weesu loolu. fekke déwén. kon nag moom li mu tudd. moom nee na li mu tudd. sunu jotaay bi gën na koo dëggal bi gën na koo dëggal. ku fekkee déwén rek fekkee déwén rek yokk nga. kon ñun ñëpp a yokk. ndax ñoo fi nekkoon daaw. li sëñ Mamoun wax ko dee liggéeyal. li sëñ Mamoun wax ne sëñ Tuubaa boo ko dee liggéeyal. yow doo yëg ni. yow doo yëg ni. mi ngi dugg ci yow. mi ngi dugg ci yow. xool ko sa kawar buy màgg. ne xool ko sa kawar buy màgg. ndax da ko yëg. noonu la demee. mbiri sëñ bi mbiri sëñ bi moom. ñeneen ñeneen ñeneen ñooy ñëw di xool. ñeneen ñooy ñëw di xool. di xam ne li nga am. di xam ne li nga am. liggéey sëñ bi rek la ko may. waaye yow. yàlla da lay tënk. yàlla da lay tënk. ba doo yëg sa bopp. ci li ngay defal sëñ bi. ndax nit bu yëgee boppam rek. ndax nit bu yëgee boppam rek. naw jëfam. mu dafa baaxoo nag. murit dafa baaxoo nag. tëñ-tëñi ba sonn tëñ-tëñi ba sonn ba am dara ba am dara jox ko sëñ bi ñëw jox ko sëñ bi xeeb naa ko ni ko xeeb naa ko kenn mësul dégg murit bu joxe addiya kenn mësul dégg murit bu joxe ab addiya ni yéem naa ko ni yéem naa ko xeeb naa ko rek moo tax luñ la jox téyel ndax luñ la jox rek xeeb nañ ko loolu sëñ Tuubaa rek ko am kon nag li ñuy def dañuy ñaan yàlla rek ci bërëb bii ñu jógee ci bërëb bii ñu jógee yitte ju waay mën a am yitte ju waay mën a am mën na laa ump yow. mën na laa ump yow. waaye umpul suñu borom. waaye umpul suñu borom. kon dañuy ñaan yàlla bu déwénee ñu toogaat fii rek. la ca des moom. la ca des moom. nañ ko bàyyi ak Serigne. nañ ko bàyyi ak Serigne Touba. nee sant nañu ñëpp. ne yitte nee na kenn ku nekk yitte joo am. yàlla na ci Serigne Touba jiitu. ci barke Cheikhul Khadim. ci barke Serigne Saleh. yàlla nañ ko teewee déwén. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. ku nekk yor paaka mbaa ngóobaan akub bidongam ba paaya daa dam ya ak paaya daa yoote